na jël lépp lépp luñ ko jox. Mhm. na jël ba jour ci mhm. alors que li ma mën a wóor ba wóor mooy. Mhm. yuuxu dina jub fuñ ko foogawul. mais père Sa Thiès bokk tak adversaire yi si Reug Reug doon am de combat ngeen am. yaak yaak Sa Thiès kenn mënul taxaw képp koo xamante ne da nga naan Sa Thiès du champion rek da ngaa far. mun naa ni Sa Thiès ba mu dalee bëree ba léegi champion hors pair lañ yor hors pair champion hors pair muy xale bu yaru dégg ndigal gëm li muy def te du fooy lamb Mm-hmm. kooku moo ku ñeme moo neex moo neex a jàppale mm-hmm. xam nga mm-hmm. ñun nag am na yoo xamante ni yu bëri yoo xamante ni duñ ci toog di ci détail naan langam ndax lamb ji des na dañuy ñaan yàlla may ñu fekke ak tal ba jour ji bu ñu indee suñu rek doom. billaahi dinañ xam ne góor ci ndigg lañ koy yow. d' accord mais mais waxtaan nañ ci plateau bi ñoom ñaar bi ñu seetaan mais dégg nañ ñu ne Reug Reug dafa def euh, deux cent combats maanaam ci wàllu tournoi lutte simple euh, ñu ñu Sa Thiès ne euh, ak bëree ak kii du benn quoi est-ce que loolu mën nga ñu ko confirmer la. xam nga lu leen wutale. waaw dóor mais maam da ngay préparé. dama lay wax bële simple. waaw. li leen wutale rek mooy dóor yi. mais avec dóor mhm. rek moo leen wutale. Mhm. mais amul benn mbër bu fit dégg daal te jaarul ci mbappat. mais est-ce ñaari compétition yi benn la ñaari compétition yi est-ce benn la. loolu booy mën naa ni sax benn la. ndax bëri la da ngay dóor daw jàpp xam nga. Mhm. mais nag bu fekkee ne du benn. te lépp di làmb mhm. ah xëy na moom bu dee leneen la lu da cee rax ay ay karateek mhm. ay ay ay ay ay ay jukku jéeri la xam nuñ koy waxeeti ay leneen mhm. ah moom la concerné mais ñu ñuy concerné jël nañ avance am te ñu ngi koy préparé te ñaanuñu ko dara nag ñaanuñu ko dara amul dara luñ koy luñ koy ñaan. amul mhm. dara lu ñu loxol ci combat bi. su arbitre fër ñu def suñu preuve. Mhm. mais confiance bi nga xamante ni Reug ah, am na ko ba ba ba du ko xaaw a gàllankoor ci benn. non da nga naan confiance bi nga xam ni doomu caaro yi am nañ ko. <laughs> doomu caaro yi doomu caaro yi ah, ngay wax. Euh. bul ne Reug Reug da naan doomu caaro yi. Mhm. confiance bi ñu am ci combat bi caaro yi wu. waa Guédiawaye bu ñu yéexee du ñu am fuñ toog ñëpp a ngi commencé mobilisé wu. Père Guédiawaye ak Pikine benn la de. benn la mais ñëpp ngi commencé mobilisé wu caaro ak Pikine tamit benn la sorewul mm-hmm. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. euh, li ñuy ñaan rek yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm kenn bañ a wuute xam nga ñëpp mu fekk ñu ci wér ma xam nga làmb ji daal ñun ñu ngi koy préparé mais mais mais booy te bëreeg Sa Thiès yomb na non bëreeg Sa Thiès yomb na yombul koo xam ne day attaqué di xeex te jàppee day bëri boo déggee ma ne yomb na yombul ci ñeneen ñi yomb na yombul boo déggee ma wax ko ci ñeneen ñi yombul ci ñoom mais ci ñun yomb na trop ndax ñun dañu man mi bàyyi rek rek dama maîtriser Sa yow mi mhm. maîtriser naa ko bu baax. Mhm. te Reug Reug mi jël avance bi moom nga xam mooy dugg ci biir géew bi. Mhm. maîtriser sa Thiès bu doon lu ñuy liir la man la liir na ko ba téye ko ci loxoom. kon yéen da ngeen bàyyi ba pare doo ko jël saa Thiès. non pare wuñu sax xam nga dégg naa mu naan moom sax nee na. sama suñu ndax sama ñaari doom lañ. waaw ndax nee na moom. saa Reug Reug tànk parewu la du la jël. waaw. mais lamb ak gàllaaj ñoo ànd nag. mais père boo waxee loolu day mel ne li li rëg rëg di saa ca soir da nga koy bëgg a confirmer. non non non confirmation sax mënu ci am. Mhm. ndax ñun suñu bopp lañ xam mooy mënuñu xam suñu bopp ba pare xam keneen. Mhm. mais li ñuy ñaan ci kàttanu yàlla mi yàlla mi maye. Mhm. yàlla nañu yàlla may ndam ci kaw Sa Thiès jël bu amul benn werante. te ñu ngi koy préparé. ñu ngi koy préparé au sérieux. te bu jour ba doom dina neex ndeyam. mais damay lancer benn appel booy. nga baal ma rek soo ma ko permettre. Hmm. ginnaaw bu ma nuyoo samay nit ba pare ci commencement bi laa la war a nuyu. Hmm. ñoom Pape Abdou Fall. Hmm. nga xam ni sama xarit la sama doomu ndey la di ko jaale xalifa bi nga xamante ni moo génn àdduna. muy xalifa xalifa Cheikh na Cheikh Saad bu génne adduna maa ngi koy jaale Pape Abdou Fall. di ko jaale njabootu bay tiri sol gi yëpp. waa Nimzaat ñëpp maa ngi leen koy jaale di ko yàlla di ñaan yàlla na ko maamam ji teeru Seydina Mohamed. bu ma jugee loolu maa ngi nuyu As Ndaw Ndoukoumane di nuyu tamit ki nga xamante ni. mooy Ablaye Diop xaas ndax ñooñu samay nit lañ. Mhm. samay nitu bopp lañ Pape Mayel Diop. Mhm. ñooñu ñëpp samay nitu bopp lañ. Mhm. yoo xamante dañ may taxaw ci zaahir ak baatin. nit nag bu lay taxaw. lépp looy def da ko ci war a boole. mais dama gis benn fu waay bu génn fan yi bu ñuy wax Ousmane Tounkara. nawoon naa ko ci ay défendre yi muy défendre nitam. ndax man dama bëgg ku am sa nit nga di ko défendre. mais dafa def benn loo xamante ni. mën naa ni ay kàcc laa ko tuddee. lan la def lan la def moom maanaam dama gis mu génn. Mhm. ne Wally mhm. dafa yebal Adamo pour mu saaga ko. xam nga ni booy bu ñu mhm. waxante dëgg rek ak weeru koor gi. Wally Seck ndax am na jotu yebal nit pour muy saaga nit. koo jotewul ak moom dara doo woykat doo dara. xam nga te Wally Seck du politicien. ba pare li gën a li ma gën a métti ci affaire bi du loolu. mooy mu ne lim xamal bàyyi Wally Seck li may wax rek dañuy jëw bay jëw ki dee. ba teg ba pare teg ci ne. Hmm. li ma xamal yaayu Wally Seck day fen waxul dëgg barki salatul fatiha ni may toogeeg yow. Hmm. nañ bàyyi coon mu nekk la ma nga ci yof di nelaw yàlla na ko yàlla xare ajana ak képp ku mu fa fekk. Hmm. coon génn na àdduna li ñu war ci moom rek mooy ñaanal ko. bu taxawee ne xamal nay Wally Seck. xamal baayam xamal yaayam. jaaga amul lenn lu ko nit mën a wax ci kaw suuf. lu dul jullite la lii doomam am tey. liggéeyam la moom moom jaaga nga taxaw ne xamal naa ko xamal naa baayam mhm. loolu boo ko waxee Ousmane Tounkara waxoo dëgg man Khadim Ndiaye mhm. man maa ni la yow loolu nga wax waxoo dëgg te lépp lu xool ci nit ba di ko wax mhm. ñun xam nañ ko ba xam ay frère am Dama Tounkara ñoom ñëpp xam nañ leen gis nga bu fi bu fi am na yoo xamante ni dafa jarul souligner ñun xam nañ ko bu baax ba ay nit koo xamante ni yow lu bon rek nga xam xam nga di yebal jël ay ñetti yebal ay nit ñu demal la ci ay sëriñ ah. Mhm. pour nga liggéey ay magistrat pour nga liggéey ay avocat ah, pour ñu génn àdduna wala wala fañ toog dootuñu fa mënati dara. Mhm. loolu lépp moom loolu lay liggéey ci loolu la nekk. Ousmane Tounkara ci Ousmane Tounkara mi may wax ci loolu la nekk. te mhm. mën naa la wax ñetti sëriñ yëpp comme fa yónnee lépp. est-ce que ñëw dikkaat ci sëriñ yi. waaw xam nga loolu. waaw su ma waxee sax damay tooñ sëriñ mais sëriñ il faut ñu bàyyi xel. ni bis day ñëw dañuy faatu. bis day ñëw. Mhm. noonu ñu ñaanalee néew bi ñoom noonu la leen di ñaanalee ba sëriñ bu ci am sa xalima looy def ci nit ki rek. Mhm. na doon loo xamante ni lu neex yàlla la lu neex yonantu bi la. Mhm. mais fekkee dañ lay fay pour ngay faagaagal nit. bis dina ñëw dina doon ay lënt-lënt sa biir bàmmeel te ba pare dina doon bëggalum yàlla boo xamante ni day wàcc sa sa biir bàmmeel yow ba koroog ngay sangu ba koroog ngay wuy ji suñu ba koroog yomal xiyaam. yàlla nañ ci yàlla musal. wax lu bon dafa amul sens. coon génn na àdduna. yaay yaay waali kenn déggu ko dara ci lu ñaaw mais boo amee haine ak nit. Mm-hmm. yow boo amee problème ak Adamo na ko réglé ak Adamo. Mm-hmm. mais lu ci Wally Seck kenn daa gis muy def politique. Mm-hmm. mu naan Wally Seck gis naa ko muy woy Macky Sall Macky Sall mooy président ñëpp koy woy mooy président de tout le Sénégal. mais pe milieu bi nu mu demee noonu ku nekk di jéem a. yàq waaw xam nga loolu lay wax ma ni la réew mi léegi booy. man dama xamatul réew mi ban réew lañ ne. dañu waxante dëgg rek dama xamatul léegi ban réew lañ ne yow dama dama lay gis ngay liggéey sa liggéey jaar yoon. nga yor say oto yu rafet ma iñaane la ko te war a ko def ni yow. mais léegi damay ñëw di la di la banaliser di tudd sey waajur di di jëw bay jëw ki génn àdduna. Thione Seck lu mu jotee ak moom. Mhm. ki génn àdduna. Mhm. nekkatul ci kaw suuf. Mhm. nañ ko ñaanal yàlla xaari ko àjjana mu ne. mais yow kilifa gu tolli Ousmane Tounkara yor say wax ju ñaaw. fu mu rek nga wax fu mu li nga xam ci nit ñi bay wax lu ko raw la nit ñi xam ci yow ba pare ne pat lii bu tudd loon Thione Seck wala tudd loon yaay Wally Wally Seck. billaahi sama yoon du ci ne. Mhm. barke sëñ Tuubaa Mbàkke mais dama xam ñooñu mhm. lu baax liñ fi nekke woon ba ci yaayu Wally Seck ba ci coon Seck mi ñuy suul barki dem mhm. nga xam ne amagul sax at at ak ay ay quelques jours lay doog am ci biir suuf